lii di projet gëna yaatal ak gën a yoon bi jóge rond-point Surnus ba rond ci ancienne route de Rufisque bokk na ci yi gën a amal solo région wu Ndakaaru ci yaatuwaay ak yombal dem beeg dikk bi. linéaire bi neuf la neuf kilomètres juróom-ñeenti kilomètres la donc juróom-ñeenti kilomètres yooyu dañ ko dafa am ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi mi ngi jógee rond Euh, Surnos dem ba route des hydrocarbures boo xoolee pàcc boobu li ne euh, euh, yaat longueur bi 9 kilomètres la beneen bi mi ngi jógee route des hydrocarbures dem ba Seveneup linéaire boobu 4 kilomètres la. ci atelier bi di njiitu Ageroute xamal na ni bile projet dinañu ko wëyal ci ñaar fukk ak ñeenti weer te itam dinañu teg ay plan yu yombal te wàññi yenn perturbation yi. lañ ci yàq rek ñaan mooy gouverneur de la Dakar bi projet yi commencé trabo yi. moom na def mais levé ci interdiction bi mu tere woon camion di dugg ak génn parce que day am benn freinage buy am ci ci ndax ku nekk xam na ne buñ commencé travaux yi forcément suñu liggéey daal di boo ñëwee fii Dakar dafa am euh, dafa am benn euh, benn instance bu ñu fi mettre en place donc am liggéeyam yëpp mooy dajale concessionnaires yi pour que su projet yu mel nii amee ñu mën a ñëw rapidement ñu xool réseau yi. fi projet bi di jaar ndax réseau Sénélec ma nga fa ndax réseau SONES ma nga fa et cetera et ndax léeg-léeg dañ ko war a puus léeg-léeg dañ ko war a teggi alors moo tax ñoom itam dañ leen a woo ñu bokk ci liggéey bi xam déjà tracé bi ku fa am réseau nga ñëw wane ko ci teel nit ñi mën a liggéey ñu harmoniser coordonné wax waxu benn baat waxu état. kii di gouverneur de Dakar Al Hassane Sall mi ngi gën a bàyyiloo xel solos projet bi ni meli sàkku liggéeykat yi ku ne jàpp ci liy yombal réalisation wa